ñu ngi lay euh, ziar bu baax di la jaajëfal di euh, nuyu waa kër gi waa Pireg ñëpp ñu ngi leen nuyu euh, waaw waa waaw waaw waaw waa Pireg ñu lay nuyu mooy fa ñàmbi ji ñore bay buuj ah tarkal nga xam ni ku am xam-xam ci réew mi Pire nga jàngee ku baax ci réew mi Pire nga dëkk mbala fa nga jàngee donc baan ñu ngi lay nuyu di la bàyyi ak auditeurs yi nga nuyonteeg ñoom. non nuyoo bi des na baan ñu ngi lay ziar séeri mari baan ah baan baaxkat bi nga xam ne ku baax bëgg la ku bëgg lu baax bëgg la yow nga xam ni heure boo xëyee waaw ak bëgg eh, kii nag eh, Cheikh Bass Abdou Khadre rek la bëgg moom la yaakaar baan ñu ngi lay nuyu maa ngi lay fay sama waa ji <laughs> yow xam nga caabi ji yow yow xam nga caabi ji an caabi ji daa gudd de non non caabi ji mu piir sañu xor fa ñam jay ñore bay puuj moom Serigne Bass Abdou Khadr taalib Cheikh Bassirou Abdoul Khadr chéri mhm, mari baan mhm. loolu la yàlla dogal ac yaa ngi lay déglu waaw <laughs> yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi mhm. na ñëpp am jàmm am sutura yàlla nañ yàlla musal te musal ñu ci lu baax waaw neen yàlla mosal ñëpp lu baax te te te ñu ci musiba ak balaa ci bët bu ñaaw ak làmmañ bu ñaaw ak euh, feebar yi nga xam ñu ngi koy dégg ci àdduna bi yal na ci yàlla muccal doomi réew mi far ci àdduna bi bu mu waaw hmm. muccal ko muccal ko muccal ci képp koo xam da ngay sénégalais bu ne ci réew mi ak sénégalais bu ne bitim réew africain bu ne ci ci sa réew waa africain bu nekk fële waaw muccal ci bépp doomu aadama amiin yaa rabbi waaw waaw amiin baan yàlla suturaal ñëpp hmm, xalaas bi njëkk nga lu mu wax njaay démb de xaw na ñoo rey Barcelone. <laughs> barki démb it xaw na ñoo rey Liverpool. waaw <laughs> xaw na démb moom Arsenal gaañu na moom. fan yee ñu génn. <laughs> waaw waaw kay moom. c'est non non bi moom ñu ngi koy émission bi yëpp wax dëgg yàlla waa Barcelone laa ko bëgg may. seen xol neexul. te dama bëgg seen xol parce que àdduna amul benn solo. sama lépp may naa ko Ismaïla Sarr. <laughs> championnat Sénégal fu mu toll. <laughs> xam nga kii ñu ngi euh, démb xaw ma barki démb ca douzième journée bi. maa ngi koy suivre de près waaw fi mu ko jiitu. fi ñu toll nii bu ma juumul Tëngéej FC. ñoo jiitu bu ma juumul waaw Dakar Sacré Cœur nu mu def. Dakar Sacré Cœur je pense moo ci topp. Ah. waaw. ah d' accord moo ci topp wala mu toppaat ci en ah, tout cas daal nekk intéressé ngay xool. ah waaw waaw waaw waaw fi ñu di xool Ismaïla Sarr a ngi noonu. Ndiaye sa waa jaa ngi noonu Ndiaye. <laughs> Ban Ndiaye sa Ndiaye sa waa. nañ doxantu ca ca fële hôpitalu Joal ba. loo xew hôpital Joal ba moom Saint-Louis la dëkk di Ismaïla Sarr. waaw. ndar la dëkk. doo wax ci Ismaïla Sarr yow. non Ismaïla Sarr kay damaa kontaan ci moom. waaw waaw Ismaïla Sarr kay saa waay bu mu nee la war a jógee. na jógee équipe bi mu nekk dem ci be ay Chelsea ak ay Cité yooyu foofu la war a dem. ok ndaxte bii yi muy dugal. Mhm. Euh, foofu la bii yooyu. fa la xaj bii ñooñu la ay waaw bii bii ñooñu la. fu ñu jëm nga ni. Ndiaye. ban. Caajaay euh, benn femme moo fa am. ñeenti doom mhm. biir këram la amee benn bi ñu yóbbu ko hôpital bu caajaay mujj rawale ko fële ca dëkk ba Joal mhm. sage-femme yu Joal yaa yu caajaay ya liggéey ci liggéey bu am solo ba ndaw si am ñeenti doomam mais bu njëkk bi ci kër ga la mujj waaw ci waxi sage-femme bi mhm. ñu yóbbu ko mu am ñeenti doomam te kenn césarienne wu ko mais ay femme la femme la boo xam ne moo jëkkër ji daan daal dañoo néew doole Mm-hmm. mais ñeenti doom lañu am yoo xam ni daal mbir mi kii lu lu lu kéemaane la. lu mm-hmm. yéeme déglul sage femme bi dina wax ndaw si dina wax ak borom këram. Mm-hmm. déglul ni mu dem. maa ngi tudd Yacine Sall. may coordinatrice SR bu district sanitaire bu Joal. waa Caajaay ñooñu oo ci suba. amoon ay quadruplé. maanaam as ndaw suusin am ñeenti bakkan. macha allah. ñu indil ñu ko comme Caajaay. amuñ couveuse te xale yi dañu tuuti ñu indi ko ci suñu unité néonatale bi nekk pédiatrie pour ñu jël en charge wax dëgg yàlla booba léegi def nañ suñ kémt laay kàttan li ñu war yëpp si prise en charge ñu koy def xale yi ñu ngi si si jàmm vraiment elles sont bien importantes parce que ay jigéen la ñeenti jigéen macha allah la indi donc ñu ñëwoon tey pour indi leen xibaar bi ndax xibaaru mbégte la fi ñuy commencé mooy ñu ñaan yàlla ñeenti bant yi yàlla indi teg ko si suñu loxo yal na leen yàlla sàmm yàlla may leen wér ba ñu judd ba fekk ba ba ñu ba ñu màgg ba fekkee seenu njëriñu waajur yépp ñu taxaw leen donc si loolu moo taxoon ñu ñëw tey ñu jokkoo ak yéen ndax xam nañ ne la nekk Europe du fii parce que bu fekkoon Europe la ba xare yi ëmbee seen yaay ëmbee ba léegi dañ leen di jël en charge boobu gannaaw bu ñu imbee ba ba ñuy màgg yooyu yëpp day am taxaw mais fii nag comme système bi du ma ne amul mais dañu buggoon rek képp koo xam ne rek am nga yéene am nga xool bu rafet yàlla mën nanal ko mais donte sax amuloo ko loo mënti am bu dee dërëm la bu dee ñaar dërëm la nga indi ñu taxaw ñu jàppale kii lii seen yaay les jeunes vingt six ans la am mm, te loxoom jotul ginnaawam pape xale yi ñoom tamit seen loxo jotul seen ginnaaw lu ñu am akus néew ñu ngi leen di def di leen jàppale pour ñu au moins di ñu am gum si jour bi muy ordonnance wala muy meew ñu ngi ciy taxaw pour jàppale leen euh, lu am lu waay mën ngeen jàppale leen léegi nag yaay xale baa ngi nii moom tamit euh, dund na macha allah ak bakkanam dara jotu ko. Mbayang Mbayang Mbayang Thiam la tudd. ah Mbayang Thiam. maa borom Cheikh yi. ñu ngi ci jàmm bu baax a ñu ci jàmm bu baax ñu ngi dund bu baax a baax a baax. maa sant yàlla. sama jëkkër ñu toog. Saliou Thiam la tudd. amul césarienne. xale yëpp dañoo judd par voie basse maanaam dañuy J1 bi euh, la juddoo léegi J ci lañ profité indi leen hôpital ñu muccee hôpital. maa ngi sant bu baax di sant suñ borom di sant tamit yéen sages-femmes yu baax a baax taxawoon nañ ko nañ ko war a taxawee. ko dégg moom xam ne lii moom kéemaan la. duñ ci def lu dul sant bu baax a baax a baax. kéemtaan bi nga xam ne daal suñ borom def na ko. lépp loo xam ne maam mën nga ko ci. nga jàpp ci te yàlla ak sëriñ Tuubaa tax. nekkul ne amuñu moo tax ñuy tàllal loxo. Eh, ndax li olof di wax yàlla ku wàccee rek am na lum tëral si yow ak lum namm si yow dañuy wax ne gémmiñ gu yàlla xar rek am na lum ci def waaye nag dafa nekk ne jamono ji dafa doy waar metti na comme niñ ko waxee ñeenti doom macha allah nga bëgg leen jël en charge dafay xaw a metti waaye mën a am rek nga sànni si waa caajaay la commencé parce que bañ ci jotee ñoom tamit wax dëgg yàlla def nañ seen kéemtalaay kàttan sonnoon taxawu nañ leen ba xale yi mu ak jàmm comme ni ma ko waxee rek si njëlbeen nga ñoom ñu ngi dëkk njagan ñaaw njagan ñaaw lañ jóge ñu leen caajaay parce que caajaay mooy seen district de référence xalaas hmm. ngeen ko noonu hmm. xale yi ña nga fële ca Joal xam naa ni euh, fële leen dëkk boo caajaay hmm. ñeenti gone lañ daal njaay waaw ku leen euh, bëgg a jàppale daal na nga dem foofee ca hôpitalu Joal ba mhm. fa lañ nekk sage femme yi ñu ngi leen di toppatoo ñuy félicité sage femme yooyu nekk caajaay ak sage femme Joal yooyu ndaxte ay jàmbaar la su ma su ma amoon baat ci réew mi hmm. xaw ma nag président Macky Sall tey bu koy def fu mu ko doon jaare hmm. ba ci même kuréel googu première dame bu Sénégal yi yor hmm. dañu war a def noo xamante ne ji. Mhm. bépp hôpital bu nekk ci réew mi. Mhm. ku fa accoucher ay. seex non pas seex sax maanaam ñeenti doom loolu mu exploit la. gën bu mhm. weesoo bu ah, weesoo bu weesoo bu weesoo bu weesoo maanaam kiiraama euh, après

dañ koy baxé bép hôpital dañ koy def ngir ndimbal. Mhm. li ñuy def ni ay 31 décembre ñu naan xawma lan. bébé de l'année ban njariñ la mais nak ñay dama lay wax dara benn affaire. Hmm. dañ ko dul wax. Hmm. mais man day ah, du lepp lañ mëna wax ci radio mais lolu cest à hmm. goné ak juddam. des ko siwal comme niñ koy def. dem tok ci tayeb and ak télé ba jonkoru nit ñi xale bi juddu nga koy wone ko bu guddé fan ci yalla la. li ñuy def ay affaire bébé de l'année nii. nit da ngay da ngay da ngay da ngay da ngay da ngay. évoluer mhm. yii ñoo ëpp njëriñ. 4 mhm. bébé. képp koo xamante ne ji maanaam ci hôpital nga nekk nga réewle jigéen mu indi ñeenti doom. Mhm. te kenn faatuwul voilà nga am ñoo jokkool ñooña am nuñ la jàppalee mën la ko gunge. loolu moo importance dañu war a décorer ndeyam décorer baayam décorer sage femme baag euh, décorer bébé ya. c'est lu mën a xew mooy lii. parce que euh, sage femme ay jàmbaar lañ tamit. c'est lu mën a xew mooy lii. Euh, dafa war a nekk lu fës parce que. rarement les exceptions li exception la ci walum am exception donc yu papa quatre doom du du du du du lu yomb donc ministre bi nga xamni moy santé la femme waaw ak yor femme ak enfance ak yépp ah, nañu ci japp li mom waaw li ñëpp askan ak képp parce que ay bébé def euh, fondation servir le Sénégal uh-huh. Euh, li may liggéey. Uh-huh. dinaa ci boole lii. waaw premier ministre de la santé. Abdoulaye Diouf Sarr da nga koy moom tamit lii Abdoulaye Diouf Sarr am na lu ko doy sëkk soxla. mais tamit lii tamit war na ci jàpp. waaw lii dafa am lu ko soxla. non ah, Omar oh, oh, yu moo dëkk ne kii ba. déedéet man waxuma lay ministre dama ne la nañ ko instituer. nga xamante ne dañuy wax par exemple ni ñu def bébé de l'année. Mm-hmm. les gens en ont fait benn affaire boo xamante ne dafa def ba mel ne tradition. Mm-hmm. ñu def lii képp koo xam ne sage femme nga nga réew le nit mu indi ñeenti doom. Mm-hmm. jokkool ak ñi nga war a jokkool. Mhm. ñu ñëw jàppale ko. ñu jàppale ko loolu dafay dafay dafay. non non ministère waa ministère de la famille moom suñ ko yëgee xam naa dinañ ci dugal seen loxo. am na solo service le Sénégal suñ ko yëgee dinañ ci dugal seen loxo. ak képp koo xam da ngay bon volonté. te am ay yére yu bébé parce que i paraît ñeenti jigéen la. déjà. ñeenti jigéen la waaw meew ma dina. loolu rek waaw dina soxla meew ma xam-xam la mais loolu rek ab takk la. wala yii ñeenti jigéen kay. Hmm. din xam nga yaay ji mun leen a nampalandoo meew war naa bari hmm. yére war naa bari lekk nga war naa bari. kon bokk képp koo xam ne daal euh, bëgg nga ko leen a jàppale passe partout ngeeg numéro bi 150 17 17 dina la jokkaleeg ñooñee. su ko defee bu ngeen di woo passe partout nag nee leen leeral. waaw seex ya nekk caajaay. waaw ya nekk caajaay boo ko joxee xaalis ne ko maa ko def ci seex yi. ci ay seexam la ko yóbbu <laughs> ndaw moom am na ay seex. maa ko def ci seex yi ca <laughs> caajaay kay waay quadruple yi nga xam ne ñoo nekk ca caajaay code bi loolu la. maa ko jàppale seex yi ca caajaay. Ndiaye affaire yi man 77 man daal affaire yi léegi dama ciy génn de. ëpp naa def na diit nañ jokk passe-partout rek passe-partout yeggale ko foofa man film nii Ndiaye affaire yi moom ndimbalante yi moom film nii moom. da ngay dee da ngay dee ba kii dañ koo war a dimbali wala moo ñu war a dimbali. démissionné naa baan kii la lay tox. Ndiaye kii day tox. muy tox déglu li muy tox sama seul problème moi que damaa nekk jigéen boo xamante ne damay tox may tox sama papa euh, dafa am famille ak Guinée foofu lay dund sama yaay dafa gaañu sama maam la nekkaloon moom mon ma yar ba mu amee onze ans ci la gagne. après ma nek, ci sama bàjjen sama bàjjen laa nekkal macha allah moom mon man ak doomam pour la yamale mais dama me gis famille bi ñu may marginaliser parce que ben seul erreur ne je suis en train de fumer de utiliser trop def du du utiliser xam mel mais sama benn loo xamante ne rek dama tabac parce que je fume tout le temps tout le temps

man xam naa ni que loolu dina mës a yàq sama àdduna après ba tey ça commence parce que des fois dama yéeg ci kaw dem di après su ma wàccee damay xeeñ cigarette suñu waa kër dañ may jébbi njikku te samay nawle laa nekkal samay cousine yoo xam te man ak ñoom ñoom ñoo tolloo te ñoom ñëpp kenn du ci tux man kese la natou boobu dal xaw natou la xaw tayef le je sais pas je comprends pas parce que man xamna ni avec ma personnalité kou ma gis danga may respecté mais sama seule chose bo xamantene nit dina ma ko waxal c'est pas n'importe où lay tuxee nak mun naa làkkatu mais làkkatu na ba ñu bett ma si suñu wa kër xamnañ ko te dama leen ko neub ba son damay obligé su ma wàccee du ma damay mujjee di dem foo xamante ni dina fa mën a tuxee ba vingt et une ma soog a ñib su ko defee temps di ma xas du ma wàcc nag ba dem ci góor du ma wàcc ba dem ci fenn sama kër copine laay dem toog mu leer ma ne foofu dina mën a yéeg ci kaw tux te kooku noonu may dem seeti sax moom elle ne fume pas du tux en plus daf may nekk naan. sama yaay bu la mësee bett ci kaw ngay toog lu muy wax ak des trucs du genre mais juste que damay dem foo xamante ne dinaa fa mun a tux aisément ak genre yooyu noonu li ma soxla lenn la rek man je sais pertinemment que rafetul ci jigéen loolu j'en suis convaincu rafetul ci góor sax bay rafet ci jigéen en plus ma tuxee ba pare damay jéppi sama bopp damay naan ci saa si bàyyi naa ko di ma tuxaat damay sevrer sama bopp sevrer sama bopp su ma amaatee envie dox damay naan su ma tuxee bee ma bàyyi su may liggéey avant may liggéey damay yëg ci kaw tuba

amul beneen vice cigarette si là comme vice si ma ma vie sera tranquille ça j'en suis convaincu Je ma cigarette j'aurai plus à craindre de quelque chose juste que nous bëgg ngeen jàppale ma que nous nous parce que bëgg naa je sama xel bañ ci nekkati bëgg n'a fierté Tout que monde, je suis monsieur. loolu s'il vous plaît je compte sur vous je le dis ake ba instant yi dama bëgg bàyyi dama bëgg bàyyi essayé naa ko multiple reprise mais ça n'a abouti à rien ku xam nag ku ma lu ma mën a sauver naa ko ko santé torop fan la yow. benn salle la salle de musculation la. Ah. salle d' entraînement la waaw. fii la nekk boor bi fee. Pape Cheikh ay publicité yi mhm, mhm. moom yii rek lay publicité waaw mais yi dafa baax yow kii euh, di dem sa yaram di ko defar yii dafa am solo kii joxe kii joxe meew mi kum meew lay joxe euh, léegi kii euh, moom dafa war sax di jël ci meew mi di ci naan moom mi tuux ban moom moom ban problème non moom tuux mu metti la nekkee rek boo xam ne daal na waar nee na daf ko bëgg a bàyyi parce que moom bàj kër bàjjanam la nekk nam yar na ko fa mu ko war a yare yemale na ko ay ay doom mais moom doo ngay tuux ci famille bi dem nañ ba famille bi jàpp nañ ko léegi nag cigarette soosu muy tux la bëgg a bàyyi te xamul nu muy def jéem na ko ba sonn. man de baan bi nga bindee ni kii day tux man ah, maa tiit. day tux xam ku nekk ak sa problème xam bul ci nekk bul ko xeebal sa problème. am mm. naa sama benn xarit Njaay ku dox ku ñuy wax Kara. musuloo woon ñëw Dakar xam naa mu ngi déglu xalaas musul ñëw dakaar ñu indi ko Dakar muy liggéey ci benn fast food ñun suñu liggéeyaan ba wàcc ci bi la ñuy dem toog ak Kara waxtaan ni benn gel ñëw fa toog reer ba pare di tux Kara ngi doog a jóge Touba xamul dara ci ci ci ci ndakaaru gi mu song gel bi mbéj ko. Hmm? lu tax ngay toox yoo xanaa xamoon ni tox mi nangam man ko Kara lay def man kii day tox yéen xanaa da ngeen a doof wax di wax wax wax song ko gel porte ko plainte man ko ci kaso bi nga jëm yow tuxum jàmbur sa yoon. Hmm, léegi mu ñëw ñu ànd. man ko ma yóbbu ko. <laughs> nga ko fa <laughs> tux lay bañ. waaw. <laughs> na ñëw dem. léegi léegi ban. sa ndaw si moom luy problème ah bàyyi tux daal la bëgg te jéem na ko ba sonn mënu ci dara. ñoo nekk nii en direct nee na nag nañ ko nit ñi loolu muy vitam sonn na trop nag. boo jaaxaane di tuur ndox koy tooyal. sa bopp ngay tooyal mais mais Ndiaye ki dafa am problème. dafa am problème ñëw indi ko pour ñu ñaanal ko wala ñu wax ko conseiller ko na la mën a def ba génn ci problème bi. Mhm. li nga wax nii du lii mooy lijjanti problème bi. Mhm. Mhm. ay conseil la soxla kii. yan conseil ku ko conseil mu bàyyi la ma la wax fii keroog jigéen ju def dara ci boppam boo ko ci bëggee dindi dindi bopp bee gën a yomb xanaa déggul ma la xale bu jigéen bu dugal dara ci boppam. Mhm. boo bëggee dindi loolu mu dugal ci boppam teggi bopp bee gën a yomb yóbbu. waa Njaay kii solution lay wut. solution ci lan. pour mu bàyyi tux mi. da dañoo am na benn waay bu ne dañ ko yebal sëriñ buy <laughs> buy tere. waaw bu lay ñaanal nga bàyyi tux. waaw mu dem fa sëriñ bi ñaanal ko. waaw mooy maama nii quoi du sëriñ yi. am ko yu ko jox ne ko de ko naan. waa ji nee na may jóge di ñibbi sama kër ci yoon wi laa taxawaat. taalaat cigarette. waaw. <laughs> léegi daal. waaw man li ma koy wax daal lu ciy pexe léegi. kan ci conseil bi ma koy jox man baan. waaw mooy lii ay euh, effort rek la laaj bu dee bu fekkee day tox par jour 10. waaw na ko wàññi 5. volonté na ko wàññi 5. na ko wàññi 5. waaw semaine bi di ñëw mu wàññi 3. wàññi 3 semaine bee di ñëw mu wàññi 2. très bien mais boole ca fulla ak fayda nag bi ci topp mooy da ngay gis tuxkat yi di ko def. Mhm. pour juste di wax la ne am tux c'est psychologique mhm. gis nga boo jëlee cigarette nga dagg ko tux ko. Mhm. nee nañu moog nga tux cigarette ñooyam donc ci xel la. Mhm. beneen bi ci topp mooy tànk yaa ngi bëgg a bàyyi tux ba pare di jënd cigarette di ko tëye doo ko mës a bàyyi. Mhm. da koy bañ a yor da koy bañ a yor. doo ko soo gisul gisul. nga bañ koo gis. moo la ci dimbali. volonté la de mais jigéen ñi tux sax daa rafetul. rafetul sax di góor am volonté rek. war rafetul sax di góor waaye saa nee na ko na ñëw mu yóbbu ko faat. am volonté rek. am na ruq yoo xam soo fa demee day. non sa waaj ji naan day bañ gis. Euh, kara euh, kara kara de day xale bu jigéen buy toog kara na ci place yoo xam ni boo ko fa. yóbbu mu dem toog dina bàyyi. kara ñëw di liggéey ci restaurant bi am euh, waa ñi muy liggéey ndool ni ko rajo sàngam la ñuy déglu. mun leen moom man Ndoye Bane laa déglu thème de la semaine xëccoo bi bari mu jël jaasi ji nga xam ne mi ci li ñuy daggee yàpp bi ñuy lakkee dibi. Mm-hmm. xar rajo bi ci digg bi ñëpp bokk. <laughs> yow ku violent rek nga fi wax. <laughs> non yow ku violent nga fi wax. jàpp mbéj ko jël na rajo bi xaaj ko. <laughs> moo tax dañ koo delloo. delloo nañ ko Touba. mu ne fi woon a yàgg. tur bi laa rus mais kon ma ne la nit delloo nañ ko Touba Kara maa ngi koy nuyu bu baax. tur bi laa Ndiaye nu ma koy def rek. Ndiaye. ban Ndiaye liiral. yow ban da nga yaakaar yaa ñu moom. liiral rek yow toog ci émission bi Kara ba sa xol sedd nga bëgg fee teg lii lii fi xaj. comme waaw déglu ko mais dina fi xaj. du fi xaj daa déglu rek dina fi xaj dégg nga dugal ma ëmb ma dem expliquer ko léegi ma ko expliquer mu ma ah moom duma la ko mën a permettre dem man ma am ku ma fexe wut ku ma sama doomu nijaay léegi bi ma ke ak moom no xam nga jigéen ki pexem rek ma dem jox ko ma jigéen ma bombé carrément na xam ne lii ëmb la tey exactement ëmb la woon deux jours trois jours yoo ma ne ko dama ëmb naa ma ne ko waa mu ne ma amul benn problème di ma jox dëgg yàlla ma dem hopital di kii ba ni ma am doom mu fay lan hôpital bi yëpp ordonnance yëpp léegi ngénte ma takk ma bi ma doom sax waa delluwaat si waaji woo ko ko man am naa doom mu ne ma si diggante yàlla mu ne ko waa mu ne dama yaakaar danga ma doon nax waa léegi nee na moom day jël xale bi te man xaw ma nan laa koy waxee sama jëkkër franchement moom sama jëkkër juru xale bi moom moom moo ko jur ki ma nekkaloon moo ko jur man nu ma koy waxee laa xamut ne juróo kii affaire yooyu noonu moo ma jaaxal. moom moo woon téléphone na ma si loo nekk ma ne ko maa ngi si jaam waaye si biir nii sax am naa doom mu ne mu ne ah dama foog ne rek danga may nax ma ne ko loolu moo amoon te doon nañ génn mais dina bàyyantewaat. alaafee bi nag sila waxat ak mom xam nga ya ma gën xam rek mais mom dama ko dama wax ni ma ba tud na la yul ki kii parce que dom bi yag yag na ko récupérer man ko man non nan la ko waxe sama jëkkeur yi nga xamanteni bi mom ma teral ba tak ma sama sey man na sey jaara ya ko kon loolu man nan la kay wax yaay ban ndaw si ku ko problème amul. Njaay ndaw si mi ngi ànd ak Ablaye Diop. noonu mhm. non ke ke de ba. Aliou Ba Aliou Ba la doon àndal. Mhm. ba wan ci lor. ci 15 jours yi. bi ngu xamee ma dem wax ko Aliou Ba. Mhm. Aliou Ba ni ko du man rejeté ko. ci saase ndaw si dem seeti benn mbokkam. bu ko daan labat muy bañ mu nangu relation bi siq ak moom la muy siq ak moom. une semaine après mu ni ndaw sa waa mbokkam boobu dama ëmb. loolu la ñu woy système parrainage. voilà mu parrainé ko mbokkam ma <laughs> bi mu ko paree mais par par par par su parce que mbokkam la. Mhm. mu am doom mbokkam bi takk mhm. muy sob soblu nag woo far wa mu ko njëkkoon a jiin ne ko biir bi ma la jiinoon nga bañ. am naa doom. Mhm. ba sama benn mbokk takk na ma. waa ji ni ko doom ji sama dooma dinaa ko dama koy jël si. wax dëgg wax na dëgg de. ki bañoon ka bañoon. moo wax nga ni yow kan moo ci am dëgg. non dama ne wax na dëgg ne moo jur doom ji. dëgg waaw kam ko njëkkoon a ji. no non ko kay da ko wax. waaw da ko wax mu bañ. waaw mu dem gaaw xam ni dem dem utili ko bàyyi. jege ko jiiñ ko ko waa ji nangu. Mhm. bi mu ko nangoo puisque ay mbokk lañu mu bàyyi ko ba mu am doom mu ngénte ko takk ko. Mhm. bi mu ko takk ko nag après nag ci la gisanteeg waa ji waa ji ni ko am naa doom ndaw si ni ko am naa doom mun ko kon sama doom dag moo koy jox. léegi moom luy problème am. lii problème am mooy ni mu koy waxee jëkkër ji. parce que nee na moom jëkkër ji déedéet. waaw ko leen la xew. ni leen doom ji doomi jàmm. déedéet da leen di affaire bi. waaw expliquer leen. waaj parce que waaj ji perturber sëyam la bëgg. waaw waaw. ah waaw. na dem gendarmerie wala police. ñoom dinañ ko lijjanti. waaw ni ñu koy lijjantee loolu la. ah loolu nag. Euh, yoon la loolu kay ci yoon nga koy jox rek. mais moom mënu ko lijjanti ñaar mu mën a am. waaj kalaate dil bi sëy bi tas. waaw ah. waa ji du jubóog ndaw si ndaw si du jubóog jëkkër ji waaw doom ji nekk ci kaa mel ni ñëwoon na fi bërgi démb de eh, alors présidence jot na de mais nag vraiment nag Ndiaye euh, lu ñu mënti wax am na nit ñoo xam ne man je lee comprends pas quoi ah vraiment euh, non non dem alors président bu subaa ñu yëgal li vraiment lii c'est compliqué